قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسناً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 واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته sëriñ bi ñu ngi jotal kàddu yu néew rek ndax guddi na ba noppi lii nga xamante ni yàlla ngi dogal nga boole ñu ak Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy ñu bokk tarbiya bi di ko def lii nag bu melee nii am na ñu ci dugal seen loxo ba mu mel nii ki ci jiitu moo di gouverneur Mouhamad Fall sa sët bâche yu bari la ñu yónnee ndax bi Serigne mustafaa laajee ma ñaata baas la ñuy baas ma ne ko bayaal bi de dafa yaatu bu ñu amee 100 baas dina baax mu téléphoné Diop si mu jox ñu 60 bases gouverneur yónnee ñu 50 baas dikkati nañ nee na yàlla nañ yàgg dikk fekkati nañ lafi fi yàlla nañ la fi fekk ànd ak suñu président suñu responsable muy Seydi Mouhamadinil Moustapha Sy jiite daairatul muxtafiina yépp bi athaaril abaay wal ashdaad tabaarakallaahu sëriñ bi njiit li rafet olof nag day wax ni diw dama ko jege ba mu ëpp matuma ko seede waaye alquran nanguwul loolu ndax al aqrabu awla ak wama shahidna illa bima alimna kon wama kunna lil ghaybi xaafisin ki xamul du seede ki xam mooy seede kon duñu ne dañu jege Moustapha ba duñu ko mat seede mat nañu ko seede sëkk ndax koy guddil di ko bëccëgal ngeen di nekk heure bu ne danga xam ci moom lu bari waaye daal la ma la waxoon benn bés ne la Serigne Moustapha ba ci guddik tey gi ñu ànd ak moom jubagum na waaye ba ci bëccëgu tey bi jubagum na ndaxit dama koy faral di wax ne ko jiite ñu la mag du sant du askan jikko la te ñii ñëpp ku mu ci sant nga def ko waaye jikkoo ma ñu wax la ne la nga baal ñu rek fi ma commencé daaw mu fi commencé waaye bég rek ci moom te bañ koo fàtte yàlla def ko suturaal mu am ñaari biye mag manoon na naa ko jox Pape Khalifa mii di sama taawu baay naa ko jox Serigne Mansour mii di sama mag wala maam Abdou Hamid mii waaye def ne déedéet naa jox benn bi Omar Cissé jox benn bi Cheikh Tidiane Diop te ñoom ñaar kune ne yeyoo ko def lu toll noonu nag defal ko mbooloo mu toll ni kaar ngay sunu kilifa dañ la koy seedeel kon sëriñ Moustapha muxtafii na yépp ànd nañ ci sa kanam papa di la sant ñépp nag ñëw nañ ci sa kanam papa di sunu papa di sunu maam di sunu ndénkaane ndax ñu ñi ñépp dañ ko jël teg ñu ci loxoom wax naa ko léegi ci convoi bi fi ñu toogoon may leen sëñ kër ku yéeme la ba muy jël Serigne Abdou di ko jox mbiri kër gi jaaxaloon na ñu bari waaye mu ngi doog a leer soxna Aminta si dafa ma ne Serigne Abdou bu fi nekkuloon ma toxu bi ma koy yóbbul dépense bi moom ma ko wax xalifaa ngi toog waaye su fekkoonte ne kër gi nekkuloo fi yow mii dana métti léegi la ma kii saaxo Habib saaxo di tooñ ne ma la nga waxoon sëñ Abdou ne ko waroo dee ma ne ko dëgg la kay dafa am ñoo xam ne mën na noo dee mais am na ñu mënuta dee kii ci la bokk ndax lu ko waral am na nitu yàlla yu deewul ñi xam duñu ko weddi kon fa tabaarakallaahu si ñu ngi lay gërëm di la sant di la seedeel ne mbooloo mi yépp nag lépp loo wax moom la ñu wax tabaarakallaahu si lii toog yépp di daairatul muxtafina bi athaaril abaai wal ajdaad dégluwunu kenn ko dul yow yow nag yaa koy déglu kilifa kenn du ko uutal kilifa taalibe nag sañ naa am sëriñ mais sañ te wutal sëriñam sëriñ kon ñi toog ñépp tey foo ne fala fala foo ne du fa kenn du fa jaar yow rek la ñuy déglu loolu na la leer ci bëccëgu tey bii ne mooy lii ma wax mooy engagement wu daayiratul muxtafina yépp ñu ànd kook suñu président national bi nangul lool jof si lool euh, xaritam cheikh am yegg si léegi Serigne Habib si bu Serigne Mansour si sëriñ bi ñun li duudu kenn wax rek wax sa taxawaay du jeex jàmbar piir nga piir waxuma jàmbar rek de piir nga jumaa ji nga wan gannaaw xam na ci dara li ko wër xam na ci dara waaju sëñ Babacar xam na ci dara njabootu cheikhul xalifa xam nañu ci dara muqaddam yi taalibe yi imaam yi xam nañ ci dara bu tabaski jotee ren vingt sept millions soixante mille francs la jënd ci xar bëggul ma wax ko mayam danaa ko wax ndax jëf wax ndax am nañu ko man war koo def du duñu ko def yow doo sëriñ buy toog ñu lay yeewali xar yow sëriñ buy yeewi di yeewal taalibe yi ñiy yëngu ci àdduna nag buñ toojeek seen kilifa lu ne lañ koy waxal kon yow mi ñuy nitu yàlla nekk sunu kanam te li ngay def lépp di dëgg lépp di yàlla mbooloo mi duñ ko umpale tey ñépp a ko yóbbaale morgo bii mën na laa seede ku dee yaay dëj yaay sàng yaay julle ba ci Makumba Mbay démb dëkk bu ne am nga fa représentant taalibe bu feebar kooku yóbbu ko la ca war nga yónne ko waxtu wu màkk jotee dëkk bu ne nga jël fay taalibe yóbbu leen ca rasulilaay daba mbay bërki démb dafa am lu may wax ma ne ko wax ko sëñ Abdou mu ne ma ñemewuma ko sëñ Abdou lim ñuy defal ci ay nag ay xar waañ wi lu ne la ñuy jox kon kenn jéppiwu la yal na la la fi yàlla bàyyi nga dund dund dund ba doyal soxna aminte si nag daf ne nga dund ba doyal na nga ko bëggee dem ma ne ko est-ce que moom buy dem ñun danañ ko bëgg mu dem mu ne nag looloo ma ci jaaxal xalifaa ngi toog kon si jërëjëf ñu ñu seere layit ñi fi teew di ay coordination muy tiwaawoon Cheikh Diène ne ci kanam ak hmm? voilà Serigne Moustapha nee na ñu wax la ne muxtafiina yépp ñëw nañu mboolem commission yi amu muxtafiina yépp ñëw nañu ndawi tarixa bi yépp ñëw nañu Sénégal yépp ñëw nañu monde baak ñuy déglu Omar Seye Keita ngoog loolu nga wax kon fa tabarakallah taalibe yi mbokki jullit yi ñu ngi leen di wax salaamun min allahi aleykum wa rahmatuhu xam naa li nu ci yokk du bari compte rendu la rekk aw ilqaa kalimat shukr ala hada sheikh almahbub inda allah cheikh abdul aziz wa ma waraa shaxsiyatahu alxalifa li anna alxalifa huwa alxalifa cheikh seydi ahmed tijan si wa kaafat usra malikiya bu nu ci jógee rekk xanaa feeñal nuraxibu bi hada alwujud seydi mohamad bakduri ñëw fi teew ci teewaayu saaxibul jalaala malik mohammadul hasan alxamis xamis saadis teew fi teewaaleel wazirul awqaaf li shu'un al islaamiya kàddu googu rekk lañuy melal wax nag sëriñ bi jaar-jaar rekk yu ñu jaar ci bis bi bis la boo xamante ni bésu ndawi tariqa Seydi Cheikh Ahmed Tijani waaye bisu senegal la ndax ndawu Sénégal ñoo aaye feet ñu am ca ñu màgg ñu ñëw teew teewal boroom réew mi di Seydi Macky sal waaye ki ñëw teew nag di kenn ci ndawu Sénégal ndax moo jiite ndaw yi di Mambay Ñang ah bokk ci lii lu rëyee nii ku ko taxawal ku nekk xam na ni dooley ndaw lagg na waaye bariwul waaye li ëppoon solo ci daje bi rekk ñu wax ci bu njëkk bi mooy njaboot bu yëgee ni kilifaam dafay yegg ci liggéeyal yàlla ba yàlla nangul ko liggéey kilifa ga ñu natt ci moom ni boroom itte la te itteem kawe lool dana jaadu njaboot ga yëkkatiku comme kilifa ga loolu benn la ci daje bi bis bu ne ñu war dalal xelam moom mi ak ki ko fi teg ak ñi mu ko bokkal séq ni njaboot gi kat ñu ngi jéem yëkkatiku ci itte yëkkatiku ci jikko yëkkatiku ci melow rafet takkaayu jikko takkaayu ngëneel ak mbaax gu ne tàllal ko ci biir liggéeyu diine bii alaaji Malick sos fii ci Tiwaawan nun ndawi dayratul muxtafiina sàkku itam ci boroom réew mi mu gën leen a jàpp ndax mu ngi leen jàpp sax naam waaye mu gën leen a jàpp mooy defar affaire bi lii nu jàkkaar lool door na ko te fii nu toog mébét na fi ay mébét yu rafet a rafet yal na yàlla yeggaleel ko mébétam ndax wax nga ko ca gannaaw Tiwaawan dañ ko a toujours été laissé en rade par rapport ak yu bëri yoo xamante ni une ville religieuse telle que cette ville devrait avoir plus de considération loolu nag mu nga ca yal na ko yàlla mertalil du diggee ndax bu diggee woon bàyyi rek waaye dafa diggee tàmmali am na lu mu door yeggagul yal na yegg yàlla na ko yeggale muy sagam su ko yeggalee muy sagam ca kaw rek la jëm tàccu leen loolu su ko yeggalee muy sagam ca kaw rek la jëm su ko waxee te amul nag yaa ni woon uhu doy na ci terangay danaa la yekkal waaye moom nag dafa door waaw dafa door njaxlaf googu nag mu def ñu ngi koy ñaanal waaw sëriñ bi nee na sama maam nee na sama maam bu jigéen nee na sama maam soxna asukan si nee na daf ko ni woon moom dafa am lu mu ko digoon nee mu ni ko eh, nee mu ni ko ah waaw soxna si loolu ngay wax mu ni ma teraanga danaa la yàkkal ne mu ni ko teraanga danaa la yàkkal unhu doy rek doy na ci ba mu ñëw ba ba ngay gis yàkk ba <laughs> tàccu leen noonu waay donc on aimerait plus de considération parce que daje bu mel nii daje tey ci ëttu maam Alaaji Malick defuñu ko rek pour mu nekk daje daje rek xoolante mu jeex dañoo bëgg mu nekk chaque année bu ñu ko passé ñu yëg ni mbooloo mi yokku na ci en terme d'organisation en terme de structuration en terme de programme programme de développement programme qui donne à ces milliers de jeunes de l'emploi. L'année dernière, on avait abordé le thème de l'emploi. Pourquoi Parce que ces jeunes avaient besoin de se créer une voie pour partir. L'Eldorado européen n'est pas une résolution pour ces jeunes. Il faut les retenir dans ce pays. Il faut leur donner de quoi espérer demain se faire une vie, une vie qui n'est pas faite de rêves, mais une vie faite d'actes concrets. Il faut le donner à ces jeunes. Et ils le méritent bien. Ces jeunes de la Daïratoul Mourtefine le méritent bien. Leur abnégation, leur engagement, tous les jeunes tijanes, en général, le méritent. Pourquoi Parce que l'ancêtre qui élit domicile dans Tuawan avait voulu que tout projet qui peut permettre aux porteur de projet une élévation spirituelle, ce projet la devrait être consolidé pour eux. Monsieur le ministre maa ngi la koy ñaan parce que lii may wax xam naa ni yow yaa leen ko waroon a wax ay ndaw a ngi yu jàmbaar yu am itte nun dañuy toog rek sëriñ bi bu waxee ndigalam fa ñuy jaar ba defal ko li mu bëgg nun xamuñu ko dañu leen a jiite waaye noog ñoom noo bokk wàccuwaay ci ñii ay doom lañu ay taalibe lañu nun ay doom lañu ay taalibe lañ fi bëgg nekk nu bokk nag bëgg-bëgg ñaar ñu bokk bëgg-bëgg ñooy ànd ñaar ñu wuute bëgg-bëgg du ñu ànd sunu bëgg-bëgg moo tax ñu àndandoo ngir fas yéene kii tey yàlla dogal ko fi mu nekk sunu baay sunu sëriñ Serigne Cheikh Tidiane Sy alxalifa huwa alxalifa alxalifa huwa alxalifa alxalifa huwa alxalifa mu ngi ci biir génnul yow la nu bàyyee kon nag li mu bëgg yépp soo ko bëggee nu defal ko ko su ko bëggul nu defal ko ko ndax nun danoo war a sëgg mu dinu war waxoon naa fii ci jamonoy sunu baay Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour fii ci ëttam ma ni ko loo soxlaati dalaa war a fekk si ku la soxlaati dalaa war a fekk si loo bëgg na la ko wax wala Pape Serigne Mbaye wala Pape Maodo ngeen defal ko ko su ngeen ko mënul sant nu ko nun njaboot gi ñu defal ko ko boobu wax moom lay confirmer waat fii yéen daal su ngeen bëggee jàmm fonkeel leen nu ñii su ngeen leen fonke nu fonk leen su ngeen leen fonkul ah sañ nañoo jàpp sunu njàmbur ziyaara muy nuyoo lislaam di assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala sant sunu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ko yeyoo mi ngi yëkkati kàddu yu nuyoo ak ziyaara jëme ko ci fadilata cheikh alxaaji abdul aziz si al amin moom mi nga xam ne mooy an naatiq fadilati al cheikh mi sayidi ahmed al tijaani al maktuum mu teew fi itam wuutu ko fi wuutu fi njaboot gi yépp mi ngi koy nuyu di ko ziyaara di nuyu kilifa yi nga xam ne ministre yi nga xam ne tey ñoo fi teew représenté fii kilifak réew mi di alxaaji Macky Sall mboolem muqaddam yu fi teew ak euh, njiitu daa daaira yi ak taalibe yi nee na ñoom ñëpp mu ngi leen di nuyu bu baax baax a baax nee na mi ngi sant yàlla yoon bi njëkkul yàlla baaxewaat nañu ba ñu amaat occasion wu daje moom nag mu ñëw fi teewal fi buuru Maroc comme niñ ko waxee woon sànq sa majesté Mohammed VI yal na yàlla yokk ko wér teewal fi itam mboolem royaume chérifien bi nga xam ne mooy Maroc Maroc mi nga xam ne soob na yàlla tey mooy balluwaayu rayonement bi nga xam ne ab tariqa tijaniya mi ngi koy def ndax soob na yàlla suñu sëriñ bi nga xam ne moo jiite tariqa bi fa la yàlla def tey mu tëdd ak képp ku mu jaboote daje bi ak teewaayam ci daje bi teewal fi njiitu réew mi dafay wane ne diggante Maroc ak senegaal jaxasoo na dema dema dem ba nekk benn yaram nekk benn ruux ñoo bokk bëgg-bëgg te nitu yàlla yi nga xam ne ñooy sufiyanke yi dañuy wax ne euh, li feeñ ci biti mooy wane li xol bi ëmb nee na dajewu tey bii yàlla dogal sëriñ Abdul Aziz Al Amin sol jàllaaba nga xam ne sunu mbokk marocain yi moom la ñuy sol mooy seen tenue bi ñu gën a miin moom mu bàyyi koo Maroc sol grand mbubu te nee na yëgoowuñu nekkul lu ñu programmé kon loolu dafay wane ne Maroc ak senegal benn jëmm lañu dafay wane itam ne seeni ruux moo ànd nekk benn te soob na yàlla xadara bi nga xam ne mooy xadara Tiwaawan di xadaratu maam Cheikh Alxaaji Malik radiallahu anhu nee na xadara la boo xam ne bu cosaanu la nekkul xadara folklorique bu am ndëgër lay la bu am cosaan la nee na liñ ko li ñuy sant yàlla mooy xadara bii di xadara maam Cheikh Alxaaji Malik radiallahu anhu wàccul yoon wi mu ngi ci kaw yoon wi di dox te nag kiy dox ci diggu yoon wi ak kiy dox ci ñàll wi duñu bokk mukk wàccuwaay nee na bokk na ci lii gën a jëmmal loolu mooy daa daaira bii nga xam ne ñoo organiser tey àdduna bi yëpp wuy si leen tur wi mu yanu ak turu wiñ ko jox muy daa daairatul muqtafiin bi aathaari al ajdaadi wal aba loolu day wane ne kon njaboot gi fa mag ña tegoon seen tànk fa lañ ko teg ba léegi te yàlla nee na man duma tas yaakaar walladina amanu ñi nga xam ne dañoo gëm di ay mag di ay kilifa imaanan kaamilan ngëm gu mat sëkk wattabaatuhum durriyatuhum njaboot gi ñëw topp ci seen ginnaaw bi imaanin naaqisin ndax mu ahilaat ya mag ñi amoon ndaw ñi amuñu ko ba mën a yéeg ci niveau bi mag ñi nekkoon yàlla nee na ci sama mbaax alxaq naa bihim durriyatihim damay jël minimumu xale yi ak sët yi yéegee ko ci maximumu mag ña wa ma alatnaahum min amalihim min shay te yàlla neen na su ma leen di fay duma ci wàññi daara ñoom ñëpp lay fay ba mu mat sëkk nee na kon li waykat yi di faral di way di ko baamtu di ko répété ne ñun ñooy njabootu Cheikh na Tijani nahnu abnaau Tijani nee na valable ne mu toog tey ci mimbar bi wax ne nahnu abnaai Cheikh El Hadj Malick ñun ñooy njabootu Cheikh El Hadj Malick di doomam. ndax itam fa mu jaaroon rek nee na fa la ñuy jaar la mu amoon ci mbaax ak yiw ak bëgg defar ak yee ba mu amoon ñu ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla def ci njaboot gi yépp mu wéy ba faw li ñuy faral di wax itam ne ñun ndaw ñi du ñu toog rek di yàccaaral sëriñ Moustapha wax na ko léegi nab nii kama kanat awailuna tab nii dañuy fexe ba lamag mag ña sosoon teg pied yi muy fond fondement bu dëgër danañ fexe ba ñun tam ndaw ñi bu ñu dikkee édifice la boo xam ne du pare la ñu war a teg ci ay briques ñun itam ndaw ñu danañ ko teg continuer liggéey bi wa nafaalu mithla ma faalu fa ñu jaaroon ci jëf ak liggéey ñu ndaw ñi itam foofu la ñuy jaar kon nee na mi ngi ñaan yàlla yàlla yàlla yokk tawfiq di ñaan yàlla njabootu mam Cheikh Alhaaji Malick yàlla na yàlla ci fayal ñu leen yàlla jaare la ko ci loxo kilifa gu baax gi di sëriñ Abdul Aziz mi nga xam ne moo leen fi wutu ñoom ñëpp nee na daal li muy dénk ndaw ji mooy nañu continuer fidèle ci li ñu nekk fexe ba nekk benn loxo fexe ba nekk benn jëmm joxante loxo te bañ a wuute nee na boo amee rek ndam dana am wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ke ci nuyoo bi suñu pàppa Alamine ñu tur boobu moo ñu gën a neex te moo ñu gën a jibu ndaxte mooy ki jub mooy jikko bu rafet. xam naa ni xëy na li ko ay ndaw mbébét organiser ko moo tax kilifa réew mi yabal ma fi ndax umpul kenn ni que man la dénk ndaw ñi dama waroon njëkke xëy mi utal xëy ndaw ñi ak defaraat jikko yi muy citoyenneté may indi nuyoom di indi feddale kóllëreem ci seen diggante di indi ngërëmam ci ñaani waaye di sàkku tamit ngeen ñaanal réew mi ñaanal réew mi nag ci moom lay njëkke ñaanal réew mi nag day ëmb njabootam ndax ki jiite réew mi bu muccee ñu ñëpp ñu mucc wax jooju ci yow mii laa ko daan déggee ku ma waxoon ni ko yàlla suñu borom dina def ba ma ñëw toog fii sa wet di ko wax ci mooy dina ma dina ma bett lool waaye lu nekk yàlla mën na ko xëy na damay wax rekk ni nit ki bu la yónnee dina am looy fàtte mais malay ñaan yow mii suñu papa ak mbooloom ñi fi nekk ñépp ñu kàttanal ma ba xëy na yóbbante bi dinaa ko wax ci ni mu gën a selle yombul ay xale buñ la ko dénkee yombul ca bu ñu defee li ñu jàngal yow mii mooy di wax dëgg rekk umpul kenn ni que ndawu réew mi am nañ ay jafe-jafe du ni que dellu ci liñ doon wax mooy ay ndaw buñ la ko dénkee ca umpul kenn ni que jafe-jafe bi gën a metti ci réew mi mooy liggéeyu ndaw ñi du dañ laa teg ci kanam rek que da nga naan lépp neex na lépp baax na lépp jub na ndaw ñaa ngi liggéey nit boo bëggee doon njiit ci li ñu ko président de la république jàngale mooy da ngay nangu li am ku bëgg a saafara da ngay def diagnostic bu exhaustive mooy réew mi fii ñu toll nii ku leen bëgg a wax ni que ndaw ñi amuñu ay jafe-jafe liggéey mooy waxul dëgg te ku waxul dëgg munoo def lu baax munoo def lu jub munoo def luy indi saafara bis bi bi ñu ko sëñ Moustapha waxe xëy na waxoon nañu ko rek mais wax dëgg yàlla naataable wu ma woon ni que lu toll nii ci mbooloo dina fi taxaw buñ la dénkee ndaw ñi nit mën a dajale ci pénc mu toll nii ndaw yi toll nii ca demoo fa mooy yaa ngi wax ak ñi nga xam ne waroo wax ak ñoom boo bëggee defar donc sëñ Moustapha ñi ngi lay gërëm di la sant di la feddali kóllëre di wax ni que mbébét yi ñu am dinañ ko sàmm waaye damay dellusi si rek ci unhu boo waxoon ci diggaate yi ah man de ki ma yabal fii li may wax nii am na honorable député bu nekk sama ginnaaw bu ko mën a firnde mooy Abdou Mbow di troisième vice président yàgg nañoo jàngal ni que bu leen digaate lu ngeen mënul bu leen engagé wu ci lu ngeen dul def parce que loolu mooy indi ñu xeeb nit loolu mooy indi ñu yàpp nit loolu mooy indi ci ñu bañ a sàmm kàddu donc defe naa ni ki ñu jàngal loolu papa incha allahu rabbi bu ko yàlla dimbalee ngeen indi ñaani li mu digaate incha allah dina ko def ndaxte commencé na ministre Ndéné ca bokk fii ci yéen ci Tiwaawan nee na ma firndeel ni que budget 2015 bii nii 7 milliards yiñ dig Tiwaawan mi ngi ci firndeel ni que résidence bi mu wax ni que dina am commencé na sëñ Moustapha wax na ko donc jàpp naa ni que kilifa la goo xam ni bu la dee jàngal ay ndawam ni que lu ngeen dee def na méngoog li ngeen ni wax lu ngeen dee wax na méngoog li ngeen dee def jàpp naa ni que bu diggaatee incha allahu rabbi dina am papa mënumaa ñëw fii ca duma la nettali xëy na kenn du wax sa kilifa sax jëw waaye jëw bu baax la man ak sa taalibe Alaaji Malick di directeur onomo bi ñu ñëw daf ni ma boo demee lan nga bëgg a wax ma ni ko ah xanaa wax ci jafe-jafe ndaw ñi mooy liggéey après ma wax tamit ci jikko yi mu ni ma bu waxee al bu waxee fukki wax juróom ñaar wax yépp bu koy tëj nee na nañ defaraat jikko yi kon xëy na day dëggal li ñuy wax waaye comme que man lañ dénk ndaw ñi dinaa ci wax ca ca mu wóor ni que xam bi nga ci am di nga ci wax ca di ñu ci dimbali donte dëgg la papa ah réew mi am na ndaw ñi am na jafe-jafe liggéey am na jafe-jafe yu bari waaye man ci liñ ma dénk muy tabax jikko yi ah dafa commencé tumranke ci réew mi te ñi ciy wax comme yow bariwuñu bu ñu waxee construction citoyenne nit ñi dañuy defe ni baatu tubaab la waaye defe naa construction citoyenne citoyen li ñu ciy wax mooy civil civisme nga civilisé am solidarité am empathie yooyu yëpp ci diine la njëkk avant tubaab bi da ko fi indi ci réew mi réew mi nag egg na fenn foo xam ni jikko yi commencé nay suux jikko mi ngi suux ndaxte léegi def lu ñaaw génn di ko wax sax nit rusatu ko Sénégal gisuñu ñoom maam sampoon ngeen dëgëral ko jikko yooyu commencé na fi tumranke te jikko yooyu bu dee tumranke yéen ñi bu ngeen ci waxul yéen ñi nit ñi topp bu ngeen ci waxul ah defe naa ni réew mi dina egg fenn foo xam ni yéen ñi bugg mu egg fa parce que am réew bu ñu demee ba sos dootu fa dara wax lu dul dëgg dootu fa dara manqué respect mag dootu fa dara jël alal joo moomul doonu fa dara bu ñu demee ba nit ki jàpp ni que mën naa jël alal lekk ko sax ba pare dem jaamu ji yàlla mu am te yéen ñii ci ngeen li ngeen ñu jàngal mooy ku lekk lu lewul jarul ngay julli donc kon réew moomu problème am na problème am na parce que dañoo commencé jël ay jikko yoo xam ni jikkoy nasaraan la jikkoy yu jóge feneen la ndaxte ñi ñuy dugal ci yoon yoo xam ni bu ngeen ci waxul réew mi ñi ñi am liggéey plan Sénégal émergent dox ñi ñi am lu ñu lekk mais bu fekkul jikko yu baax lañ defoon lépp day daal di niil parce que ñun suñu dëkk ak lu ñu mën a wax ñi fi ëpp nitu ngëm-ngëm lañ ku jul jullit chrétien nga te ñoom ñaar seen ñaari ndigle yépp mooy jikko yu rafet mooy jikko yu jub donc am nañ yaakaar bu rëy ci ngeen jàpp ci mosu cee jóg xëy na ñu ñoo leen ci war a fekk si ñu defaraat jikko yi ndax jikko yi tumranke na balaa maa jeexal dinaa wax ni que sëñ Moustapha mi maa ngi koy gërëm maa ngi koy gërëm ndaxte am na lu ma xamul woon ci moom parce que bokk na ci ñi nga xam ne ñu néew la ñi ñëw ci bureau ministre wax ba génn te duñ la wax seen soxla wax ba génn noo def pour génne ndaw ñi ci jafe-jafe yi nekk la man nag dama bëggoon jikko yooyu ñu wax fii sànq ni ko yow moom nga am maa ngi lay feddali ni mi ngi ci moom mooy def lu baax ca fexewoo ko nit ñi xam ko def lu baax ca fexewoo ah, euh, ñu mbamb ko ci rajo yi mais def lu baax ngir yàlla suñu borom mais loolu ku gëm mooy xam ni que def lu baax moom boo ko defee ala kulli àll yàlla suñu borom dina la ko def